jaajëfal ci seen teewlu ak ànd bi ngeen ànd ak la chaîne leader ñu ciy kontaan nag di ci bekk à chaque fois si waxtu wi jotee 11h jàpp midi ñu door émission wu jéeg a këram ñu koy amal nag du lundi aujourd'hui ngir waxtaanee fii waxtaan yu am solo yoo xamante di leen ni dina leen mën a gunge ci seen nekkin comme tous les lundis nag dañuy waxtaanee entrepreneuriat ndax xëyu ndaw ñi def ñoo yitteel lool moo tax saa su nekk dañ leen di dalal ci plateau bi ngir mën a waxtaanee ñoom seen ay projet mais gunge leen bu baax a baax Fatima euh, dina teew ci plateau bi. teew na sax laay wax ci plateau bi ah ñu nar a waxtaan ak moom aussi ak invité am Aïcha Ndir n'est-ce pas Fatima. bravo. <laughs> mi ngi noonu Aïcha Ndir <laughs> mi ngi noonu xam naa ne danga nga resté di ma xaar ci loolu waaye mooy loolu. <laughs> Aïcha Ndir moom la ñu nar dalal nar waxtaan nag moom nag si wàllu entrepreneuriat ndax moom dafa teg benn structure boo xamante ne nii dina gunge ndaw ñi ngir ñoom aussi ñi nga xam ne am nañu ay projet yoo xam ne bëgg nañ kaa réaliser mu jox leen ay béréb yoo xamante ni da ñi daa ñu fa mën a toog ngir mën a concentré wu euh, xalaat bu baax ngir mën a réaliser seen yooyu les projets mais ki nga xamante ni leen ni moom moo di Kumba euh, Meng ah chéri daam meng wala chéri sama cousine <laughs> mu ngi noonu moom aussi teew na ci plateau bi ma di koy nuyu bu baax a baax moom aussi beneen structure la teg boo xam ne dafay faciliter suñu nekk ci biir kër yi mooy di ñu jox ay euh, ñi nga xam ne ñooy miin a daan doole yeeg ñeneen ñu ni mel ngir ñu mën ñoo gunge ci yenn yi nga xam ne daañu ko yittewoo bu baax ci kër yi mais Fatima laay nuyu dalal ko ci plateau bi am mbégte lool nag feggoog moom comme d'habitude rek <laughs> c'est partagé mu demal doon xaar ba nga ni ba nga ni Aïcha bi ba nga ah, <laughs>

jege këram këram tey daal dafa mel ni maa man tey di nuyu ñëpp rek comme d'habitude nuyu ñu bokkal plateau bi madame Mbengue mhm. bienvenue sur le plateau merci Aïcha bienvenue aussi maman comme d'habitude rek mi ngi noonu ah, madame mbégte la rek di di partager ak yow plateau bi comme d'habitude partager macha allah mi ngi noonu noonu la nekkee mbégte si ñun aussi tamit ñuy janoog yi nga xam ne ñoo safoo la chaîne leader te di ñu topp bu baax a baax euh, ma daal di nuyu Aïcha Aïcha Ndir salaamaaleykum <laughs> mbaa ci jaawu ça va maa alhamdulilah maa nekki nga bu baax Aïcha. waaw nekk naa tuuti rek. tout ah, tuuti tuuti rek <laughs> mi ngi noonu euh, dalal naa la si plateau wu Jéeg merci beaucoup donc maa ngi tudd Aïcha Ndiaye comme ni nga ko waxee man maa ngi créé benn structure il y a un an donc structure bi nga xamante ni day gunge entrepreneur yi ci réalisation wu seen projet daf leen koy yombalal. donc loolu day commencé par benn cadre de travail boo xamante ni dafa réseauté maanaam bëri na ñu koy fréquenter dafa productif te dafa agréable donc nous noonu nous recevoir tamit collaborateurs et ses clients pour une rencontres et nous proposons également une formations accélérées pour faciliter l'incision projet Madame une formation centrée sur l'entrepreneuriat, gestion de projet accueillis. ba c'est parfait daañuy gën a ñëw gën a xóotal waxtaan bi incha allah ngir ngeen xam njëriñu euh, structure boobu nga xamante ni ne nii Aïcha Ndir teg na ko ngir gunge ndaw ñi wante Kumba Mbeng moom aussi teew na ci plateau bi moom ñun la fi nekkal ñun ñi nga xam ne ñooy borom kër yi ngir suñu nekkin gën a mën a euh, yemb ñu mën a ñëw ci euh, plateau yi wala ci diwaan yi ñuy liggéeyee te du ñu am benn pression duñu am benn stress Kumba nuyu naa la maa ngi lay fay mama ma ngi kontaan trop ci invitation bi di la remercier di ñëpp mm-hmm. Je euh, suis ngi Koumba Mbeng donc suis structure il xam ne deux ans et demi donc structure bi nag li ko tax pour que dimbali puissent ku sa qui nga la sa plombier problème électricité donc structure bi si formaliser liguey bi gëna jappalé former aussi ñi nga xam ne nous ñëw pour gën accompagner pour liguey bi professionnel. macha allah mu nekk lu am solo ci formalisation boobu nag la ñuy ànd ak waa régie ngir seetaani benn élément boo xamante ne leen ni secteur informel bi mi ngi ciy def liggéey bu am solo ngir mën a former xale yi ñu am formalisation formation bu dëgër boo xamante ne dina leen mën a gunge ñu dem seetaan ko dellu si ci plateau bi. li nga xam ne moo di euh, secteur informel doon na euh, pàcc bu am solo ci li nga xam ne moo di koom-koom euh, réew mi ba tax na kilifa yi gis ne. faaw ñu gën a organiser waat maanaam formaliser bu baax a baax li nga xam ne moo di secteur informel fii ci réew mi. formalisation mooy nan la nit ki dem ba bindu ba su bindoo lépp li nga xamante ne da koy soxla ci liggéeyam mu mën ko ko yombal solo si boobu nag moo am benn lu ñu tuddee statut de l'entrepreneur loo xamante ne la day yombal bindu mi. ndax nit ngi gisoon nañ ne ci seen biir amoon na jafe-jafe pour nit ñi mën a bindu ñenn ñi doon nañu jàmbat ne dafa cher ñii jàmbat ne dafa compliqué du ñu amuñu du leer ci leerul ci ñoom yooyu yëpp muy loo xamante ne dafa doon ay gàllankoor pour mën a jot ci li ñu soxla woon moom mooy nit ñi bindu. daje bi nag doon na lu am solo ndaxte dafa dajale ñi nga xam ne ñoo yàggal liggéey ci li nga xam ne moo di statut de l'entrepreneur.

li nga xam ne moo di secteur informel fii ci réew mi. Euh, secteur boobu nag nekk secteur bu am solo Fatima parce que bëri na ndaw ñoo xamante ni leen ni waxtu wi tembe ñoom ñëpp ña ngay entreprendre ay mbir yoo xamante ni leen ni état bi dafa teg ay structure yoo xamante ne mën na leen caa gunge bu baax a baax euh, da gis ne dañuy fi invité femmes transformatrices yi nga xamante ni leen ni dañoo nekk ay bénéficiaires ci yooyu les structures ndax fa la ñu génnee ginnaaw formation yu am solo yu ñu leen defal mais formalisation bi ak financement bi loolu nonu yépp bokku ci li leen gungé tay ba ñu réaliser seen ay projet ba ñoom aussi tamit ñuy lëkkaloog yeneen i ndaw ngir mëneen leen a partager ak ñoom seen savoir ngir ñoom aussi tamit birum entrepreneuriat bi gëna mëna mën a yaatu euh, fépp fépp te loolu noonu tamit njiitu réew mi ak ñi mu àndal ñu ngi ciy def liggéey bu am solo mhm. macha allah tout à fait parce que xam nga euh, secteur informel ci bopam boo xolé daf fi daf fi am place daf fi am gëdd daf fi daf fi taxaw

amul pour suba pour épargne ak yooyu parce que formaliser ou wuñu lépp dañu ils ont besoin d'être formés xamné employé bu nek war nga ko am ben CDD CDI ay contrat lépp lo xamné day tege ci yoon lépp ne korom ne jot ñu jonne nga xamné bu suba bu dara xewé nga am foo lo mëna ki parfois di nga nek ci informel euh, di liggéeyal nit mu mu mu ngeen am problème nga traduire ko en justice il y a pas de papier du mujju fenn moo motax ñom ñi sen bop ñom ñi fa nek ñom ñoo wara a jege gëstu mais aussi ñi def formation aussi état bi aussi war na leen a fekk si. tout à fait motax da fay baax genre structure yi ñi yi ñuy créer vulgariser ko waxé ko fep yuux ko fep sur les plateaux télé sur les radios partout au moins nit ñi xamné li lii am na fi au moins ñu xamné li lay njariñ parce que buñ xamé né mo ngi exister xamu ñu njariñ bi aussi du dem parce que la majeure partie aussi secteur informel bi ñu fa nekk boo xoolee seen jàng soriwul. deug la de sa fait papier ak yoy da len di sonal. il faut nga ñew sur le terrain sur les amuñu jot seetaante la déglu rajo amuñu ko sax nak mm-hmm. fi ñu fekk ñi ngi lijjanti sen bop day baax ñu fekk ci len sur le terrain. informer len ñu xamné li amna fi que li lañu wara def ñu nek ci. tout à fait d'où l'importance suñu waxtaan bi tay ngir mëna jappalé ñi nga xamante ni la nii peut-être euh, manque d'information bobu nonu mom motax duñu xam euh, mais aussi tamit euh, Kumba yow nga nekk kenn koo xamante ni dañuy jël nga initiative wu euh, gunge euh, benn pàcc ci euh, secteur informel bi mooy ñi nga xam ne mooy mii na daan doole yi ak ñi nga xamante ni dañuy peut-être dañ leen di soxla ci suñu kër pour yenn mbir yi nga xamante ni nii bëgg nañ ko def donc tey jii nii déjà loolu nekk lu am solo donc initiative bi sax laa lay njëkk a laajte naka la la dikkee merci ba initiative bi en fait comme li nga wax rek li ñu waxante sànq ba léegi rek mooy mhm. rencontrer ay jigéen ñu jóg daan seen doole salaire bi des na munuñ ci faj seen doom munuñ ci def dara weer bi dee boo si dendee say loo lekk mu jeex mhm. donc souvent loolu aussi day am aussi man tam aussi ma nekk yaay yor ay doom di confronter yenn problème yenn saa nga jël jank wala nga jël nunu sa kër mhm. gis ne formé wuñ ko nga gis na salaire bi nga koy fay tam des na way wàññi motivation mhm. tay bu ñëw bu suwaa du ñëw loolu yëpp professionnalisation aussi daf ciy jouer donc moo tax ma ni euh, il faut il est temps aussi ñu jàppale muy jigéen ñi ak aussi xale yu góor yi nga xam ne aussi ñu ci secteur informel bi en tout cas di intervenir si kër yi mhm. parfois soxla aide parfois c'est lu ci ëpp salaire bi daf ciy jouer lu ci ëpp di nga ci gis ku liggéey bay xëy feebar kenn du ko dimbali donc loolu la ñu bëgg formaliser mais permettre leen ñu am contrat de travail permettre leen aussi xool tout ce qui est couverture maladie ñu mën ko am aussi mën leen a jël en charge au moins une partie bu ñu feebaree wala bu ñu amee yenn difficulté surtout salaire yi aussi jéem a xool koy rehausser aussi mhm. c'est vrai que métti na si ñëpp mais ñoom bu ñu rehausser salaire yi du mën a dem parce que ñoom motivation bi daf ciy jouer dëgg la loolu mhm. euh, da nga wax aspect bu am solo mooy formation bi nga xamante ne nii wax nañ ko am parce que loolu moo leen di permettre ñi ngi wax ay incidents euh, domestiques yu bëri yoo xamante la nii peut-être manque de formation moo tax ki ngay dénk sa njaboot du mën a xam naka lay gérer yenn situation yi yi mu nekk lu am solo Aïcha euh, gis nga euh, Kumba li mu wax euh, mu nekk wax ju am solo yow aussi yaa ngi ci sa domaine xam naa daañu ci ñëw léegi mais lan ngay dolli ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko non li mu wax effectivement dëgg la partie secteur informel bi donc mu la. Mhm. nekk lu am solo Fatima ma bàyyi la nga laaj ko. waaw Kumba xam nga xam nga fii problème bi mooy. boo amee ba indee nit min na daan doole mu indi ko sa kër. Mhm. étranger la xamoo fu mu jugee. xamoo xamoo jikkoom xamoo nu mu mel surtout Dakar ñëpp dañuy xëy dem liggéey nga boole ko bàyyee sa kër à une personne inconnue. Mhm. nit ñi dañ ciy xaw a am. dañ xew waaw noo def parfois nga ni ah dama am nit ku bees xaaral ma yéen ma nekk ak moom tey xool nu muy comporté wu ak yooyu noonu bu fait confiance boobu noonu euh, tey sa structure bi nga bi nga bi nga créé daf ñuy permettre ñun ñu basé wu ci yow xam ne ki ñuy indil ku baax la ki ñuy indil ñi comment nan ngay dem ba xam ne kii su ma ko yóbboo ci kër parce que risque la déjà bu dara xewee koo placé bu dara xewee yow la ñuy woo comment ça se passe nan ngay xàmmee nit ki comment ngay def ba nga xam ne kii ku honnête la et tout mën na nekk mën naa ko jël placé ko fenn mu nekk fa am déet comment euh, ñun suñu réseau lu mhm. ndaw la du réseau bu mag donc mhm. ñu koy développé c'est vrai mais dañu bëgg mu nekk réseau boo xam ne nii dañuy xamante ñoom mhm. ça veut dire que képp ku ñu si dugal balaa ngaa déjà cette pièce d'identité loolu moom waxatuñ ko. Mhm. donc essayez il y a ce casier judiciaire ñu commençons di enquête déjà ñu am say référence aussi. Mhm. exact c'est très important xam fan nga jóge mhm. fi nga jóge woon yan problème nga fa am lan moo tax nga jóge fa xam pour xam sa historique xam aussi mën a xam yow kan lañ la mën a booleel sa caractère aussi dañuy poser yenn question sa caractère aussi parce que ça à en fonction de client bi ñu lay yóbbu mhm. ak euh, famille bi ngay dem yenn caractère yi mënul dem donc loolu c'est très important mooy mhm. sélection profil bi c'est très important mhm. et en plus dañ koy renforcer ak formation <coughs> donc tout au long du processus dañuy def euh, deux semaines de formation intensive yoo xam ne moom la ñuy def pour mën la mu nekk ci partie nunu mu nekk ci partie nooy téye kër nooy ban ban comportement professionnel nga wara am aussi parce que ñëw ci kër gi né dama bok ci kër gi mais da nga ñëw ci kër gi aussi faut pas nga faté que da nga wara professionnel aussi parce que da nga ñëw pour liggéey ki daf lay fay xaalisam dafa am comportement bo wara am aussi mm-hmm. lolu aussi dañ la ci former lépp luy nettoyer former former di leen toujours di leen dolil di leen yok dolé ci côté formation après aussi dañuy def aussi ay ay genre atelier ñuy mëna organiser tous les mois mm-hmm. pour wolé ñu ñëw pour ñu mëna a gëstu comment ça se passe voilà xol comment ça se passe lan lañ mëna changer lan lañ mëna yok

ñi ñi postuler bu ñu en bu ñu répondre seen façon seen réponse ci lañ leen di woo entretien ñu mën a jàkkaarloo ak ñoom yenn saay aussi day am ay recommandation recommandation nag moo ñu gënal wax dëgg yàlla parce que yenn saay ah, am sax cliente bu ni man di doon liggéey sama kër mais damay voyager donc dama leen koy recommander yooyu ça souvent day renforcer ni ki amna mhm. amna am na yenn Pastef liggéey aussi mhm. d'accord parce que ñoom malheureusement ñu ci ëpp ci ñom euh, peut-être jànguñu pour mën dem ci réseaux sociaux yooyu noonu ngir mën jël seen ay contact donc peut-être recommandation bi comme tu as dit recommandation bi daf ci jouer lu bari bari bari après nak la plupart aussi ñing ci Facebook beeg yooyu mi ngi si bir ñom ñu ci bari ñu ngi ci Facebook bi mhm. WhatsApp aussi gars yi dañuy partager suñu page dañuy partager bu ñu ay offre dañ koy partager dañuy jékki-jékki rek ñoom ñu woo ok dama bëgg kii ñu ne laa ok nii nga bëgg def nii nii def pour nga mën a ñëw fii ñu defal la entretien pour ñu mën la dugal ci suñu structure mais c'est vrai que sélection bi moom moo gën a important parce que ñu bëri dañ naan bëgg naa liggéey mais au fond boo demee xool xam ne xëy na peut-être am benn soxla bu teew rek ñu bëgg liggéey pour deux trois mois te ñun loolu duñu arrangé lu ñu sañoon ay nit ñu engagé tu ma six mois au minimum wala un un an dafa leen ay contrat yo xam ne dinañu mën permettre aussi suñuy client ñoom aussi am confiance ñu mhm. bañ a nekk kuy ñëw pour deux mois pour xool demaat d' accord mais loolu amna solo Fatima mais ben affaire moma xawon xawoon jaaxal mooy que ñu bari peut être dañuy dem ci dëkk yi euh, ci gox goxati outil fa ay jank donc ñoñu aussi nonu lañuy ñëwé ñëwee biir ndakaaru pour ut liguey mhm. mais des fois bu ñu ñëwee aussi duñu am fuñu ñu nekk mhm. donc en attendant que ñuy xam ñom fa lañuy ñuy nekk yéen da ngeen leen di jël loger leen en attendant ngeen leen di utal wala naka

mënuñu jël tam nit ku jóge village xamuñu kii yam di ko dugal fen am na ñoom dañuy ñëw amuñ sax carte d'identité loolu tamit day yéeme nga jël ko dugal ko ci këru nit tamit parce que responsabilité après suñu ginnaaw la aussi moo tax mais am na benn question ma la bëgg a poser est-ce que est-ce que ni ngeen ni ngeen di gëstoo mhm. euh, la la la la dame qui va travailler <laughs> est-ce que da ngeen di gëstoo noonu euh, fi ngeen koy yóbbu aussi mhm. xam nga parfois di nga jël nit yob ko ci famille bo xamné wala ci nit bo xamné wala ci kër bo xamné mara maara mhm. nga dem ñu agression yi sexuelle yi en pagaille du xaj du jeex euh, agression physique yi ak yooyu non est-ce que aussi ñu ngeen di ñu ngeen di euh ki liggéey non ngeen di gesto ci ki muy liggéey yi ki muy liggéey wa ki ñuy ki liggéey mu nekk ñun suñu cliente mhm. pièce d'identité am dañ ko koy laaj composition famille am ñu laaj ko ko mais mënu ñu nak ne ko ah lii ak am na am na historique yoo xam ne buñ ko mhm. gisee dinañ xam par exemple am nañu parfois ay famille yoo xam ne dañ ma naan voilà da nga fi indi nit peut-être du lekk dafa am ay problème wala yooyu famille yooyu dinañ si tenir en compte aussi mhm. yenn saa ñu ne ñu diw dafa compliqué mais xam nga loolu du raison aussi pour nga mhm. jox nit tamit jàng compliqué na xëy na façon moom la mel donc da xool ku mën a àndal rek après ay affaire cas yoy aussi des fois ñu dégg ko si di ok domum daf ma jéem a wala yoy tam aussi des fois ñu dégg ko aussi yoy tam bu amé da ngay def enquête laaj ba xam est-ce que fay nan la démé mhm. parce que lila la Fatima laaj dafa am solo mhm. est-ce que di ngeen jékki-jékki aussi ngeen dem kër nit ki xol ah. jank bi num fa togué ah, nan la nekkee ak aussi situation keur ga nu démé si si si si loolu c'est très important ñun loolu dañ koy def sax rien que pour fidéliser suñu client parce que day mel ni nga jël ni rek dugal kër it xamatoo ci li mu nekk. Mhm. aussi pour mën a garder parce que dañ leen di employé aussi pour mën a garder pérennité bi ak fidéliser suñuy client xam aussi ci li mu nekk jànk bi si li mu nekk. Mhm. est-ce ngi anam yu baax anam yu baaxul. est tamit ñoom ñaar ñi ngi juboo ba léegi parce que yenn saa yi diw ngeen affaire yi am problème kay xëy xëy dàqut du ko yëg mhm, donc il est obligé tous les mois balaa ay paiement yenn saa yi client yi nañu ah moom kat côté bii bu ngeen ko mënee gën a former ci côté bi am na volonté mais ci côté bi gën yokk yooyu aussi dañ koy déglu daal est que parfois xam nga nit nit moom mhm. nit rek la y a y a des personnes xam ne dañuy liggéey fi cinq jours dellu si waat si agence ba <laughs> liggéey fee trois jours dellu si ah, waat si agence ba dem yër nan ngeen nan nan ngeen euh, nan ngeen di comporté ak une personne koo xam ne du toog fenn parce que am na jànk yoo xam ne ah non dañ lay bannir moom

tabaski jot wala waaw xew loolu tam aussi dañ koy cadré ci contrat bi aussi ah, y a des nombre de jours yoo xam ne moom nga am droit absenté wu tabaski mm-hmm. Mm-hmm. bu la neexee nga concentré ko ci benn par exemple ne man tabaski laa soxla wala nga ne màggal laa soxla aussi loolu yëpp mën nañ ko négocier ci contrat bi balaa ñu ko établir mais da nga koy respecté ko dépassé dañuy obligé interrompre sa contrat d'accord yàlla Aïcha loo xalaat question boo xam ne peut-être yow bëgg nga ko poser parce que ñun ñëpp non man fan la kontaanee ci service am mooy li mu wax ni que day former déjà euh, employé am yi mais aussi parfois dina wàcc si kër pour xool est-ce que tout se passe bien C'est mhm. comme moom aussi li mu wax am na employé xam te ni de cinq jours fii ñëw après yow doo xam nooy def dëgg la lay yàqal donc côté boobu moom vraiment am na solo important d'accord euh, madame Meng, nag euh, question bi ma lay mujjee laajte ah. moom boobu moo ma gën a soxal parce que xam nga des fois da ngay gis ñu teg seen mi <laughs> ngi noonu <laughs> da ngay gis ñu teg seen structure xam nga mi ngi noonu daal a la ca war yëpp mais euh, tey jii nii euh, bu fekkee ne euh, am na dara lu xew peut-être am na benn sàcc bu am mhm. wala peut-être jànq bi si mhm. boppam subir na benn violence foofu noonu euh, tey euh, ni ñu ko wax a toppee ci yoon accompagner ko ba bu fekkee ne moom la ñu def lu dul noonu mu am euh, li nga xam ne moom moo di ay àq ak ay yelleefam mhm. de même aussi tamit bu fekkee ne dem na foofu noonu parce que yaakaar ngeen di am ginnaaw formation beeg yooyu mais yaakaar ngeen di am mënoo leen a xam carrément nit ki ndax nit dafa lëndëm donc du coup tey mën ngeen ko yóbbu mu def fa benn affaire boo xam ne est-ce que yéen da ngeen di ñëw dañ lay wax loolu à la base mais bu loolu amee nga gis ne dégagé nañ seen ay responsabilité wala danga nga ciy topp ba da ngay mujjee maar bàyyi leen mais duñ la remboursé dara te fekk na li ngay wax effectivement sàcc nañ la de aussi tamit ci côté jànk bi mën na fa dund lu metti loo xam ne bëgg na assistance mhm. mais ngeen dem ci tuuti rek daal di koy bàyyi

ñun dañuy dañuy accompagner quand même dañuy accompagner quand même client bi. d'accord fekké fekkee am nañ assurance. donc su fekké dañuy def quand même enquête il faut quand même enquête. pour sûr est-ce mm-hmm. que nan la démé parce que même hôtel defa nga am ay cas yo xam dañ la nan jël nañ ma te fekk nim ko dencee la wala mm-hmm. problème la donc dañuy def enquête ba xam. Mm-hmm. boudé dee loolu la ñu jël suñu assurance mettre ko en avant pour mën a client bi mais il faut quand même enquête parce que ñu xey rek. si di nga am cas ku xëy na la jël nañ ma lii te mënoo ko justifier il faut justifier la ñu def enquête ba gis ne kii moo ko jël mhm. boobaa ñun dañu suñu assurance ñëw suñu avocat aussi ñëw gunge ñu ci côté boobu d'accord noonu la bëgg liggéey ba ngeen rembourser nit ki ah remboursement bi moom bu fekkee li bu fekkee c'est avéré moom dinañ bu fekkee c'est avéré mais loolu mhm. mhm. moom moo jël lii nga ne maa fi tegoon sama jaaro valeur temps la diw moko jël. Mhm. lolou boko meune justifier ñi ko mën justifier nak moo bari yenn saa deug la moo Fatima est-ce que duñu def ay caméra de surveillance. ci biir yi ba <laughs> fa di nga gis lo bëgg a gis te yooyu moom wóorul. aussi tam lolou mom wóorul ci voilà. Mm. yoy mom faut même pas prendre le risque. mais mais mais sama question mooy. Mhm. vice. Euh, côté euh, jank bi tamit je pense que deuxième question bi parfois nit ki mën na ko liggéey loo ba pare. Mhm. après dàq code sans fay. waaw loolu moom dañ ci intervenir lu bari bari bari yenn saay parce que souvent lu koy indi rek mhm. ju mécontentement wala ñàkk déggoo moo koy indi wala problème daal souvent moo koy indi moo tax nga jeg jég gis client bo xam ne du sa veut pas dire que mënul fay sax mhm. dafay bañ ko fay parce que xëy na am na lu ko neexul lool moo koy indi wax mhm. dëgg yàlla mais souvent lu ci à l'amiable lu ci ëpp wax dëgg sénégalais am nañ quand même. à l'amiable expliqué. souvent dina fay xaalisam dina fay mais pourtant euh, kii yu bëri client yu bëri euh, seen stratégie mooy jël jànk un mois après ñu changé ko ak keneen ñoom du fay ah wala ñu am ah, faute am ay liggéey protocole yu jël la nga def liggéey après ñu daal di non convention de mise à disposition à part quand même depuis notre plateforme euh, on peut réserver des femmes de ménage à la journée On peut réserver à la journée mhm. loolu euh, day am prépaiement depuis notre application par contre la partie mensuelle nga jël kenn ok pour une semaine tabaski baa faire le de grand ménage après on débarrassé wu mhm. non là on le fait juste sur les périodes de fête la tabaski une opération tabaski que ñu lancée il n'y a pas longtemps mhm. là le client est déposé à compte donc il n'y a pas de moyen de retenir. ñu mu ñàkk faire par contre euh, sur les autres moments bu dee service régulier boobu da ngay da ngay euh, comment dire une am convention de mise à disposition boo xam ne ni am na ay charte ak ay yelleef mhm. jël nit fin du mois nga ne non du ma ko fay amul contre mhm. convention de mise à disposition yaa ko signé yaa engagé te c'est sur un long terme soo kontaanul dañ lay indil keneen amul damay xëy dàq nit sur cinq six jours moom d'accord mais jànk yi nga xamante ne tamit boo demee liggéey wifi bi bu fa nekkee fa la ñuy nekk H24 di connecté wu duñu liggéey dara te <laughs> tam solution la de couper wifi ah couper wifi mais mais voilà après loolu yëpp ci professionnalisme la rek li ñu doon wax affaire formation si lay dugg nit boo ko formé mu xam li ko yóbbu ban comportement la war am waru si am après nag su neexee bon xëy na jànk yi fanaan guddi gi mu fanaan yoru fi loolu mën na nekk mais loolu tam aussi ba tey ko professionnalisme la rek mm-hmm. nit quand il est formé professionnel xam lan ngay wut moom warul nekk di traîner ci wifi amul jot bi sax normalement normalement amul temps bi d' accord euh, dernière question bi mooy lan moo la gën a marqué depuis bi ngeen tegee teen seen structure bi loo xam ne dund nga ko soit mu nekk ci côté jànq bi wala ñi ngeen di yóbbul euh, li ma gën a marqué mooy précarité métier bi quand même dafa metti parce que des fois nga gis ay nit ñu néew doole mhm. vraiment côté jànq côté dañuy nga gis ñu néew doole vraiment manqué formation xamuñ fu jëm soxla nañ xaalis parfois sax dañuy dem si kër yi rek pour dëkk rien que pour xaw a nekk à l'aise tuuti. Mhm. donc parce que dañuy sonn dafaa nga gis ay jigéen ñoo xam ne nii dañu dund yu metti ñi ñëw am nañu dañu ñëw gàddu seen doom doo xam c'est vraiment difficile quand même. c'est mhm. très difficile. Mhm. et li ci gën a metti li ma ci gën a expérience ma si am mooy y a un manque cruel de formation. il faut ñu moderniser métier bi il faut ñu former leen il faut ñu professionnaliser ko loolu moom si gën a gën a marqué et aussi. Euh, que aussi maman yi ñun comme ñun cliente aussi dañu nous a xëy mhm. parfois aussi dañuy nous désespérer de xëy soxla jànk war a xëy liggéey xamoo nooy def mhm. donc c'est sans un métier quand même très difficile et on voit toutes les situations parfois voilà c'est mhm. compliqué quand même. dëgg c'est difficile Fatima lui c'est la bu mujj. sama ñu tëj ko ñoom dem ci <laughs> Aïcha. man par rapport xam nga parfois am na am comme nous mu ko waxee rek da ba pas laaj mais damay. damay yokk am na ñoo xam ne dañuy ñëw ne la là toog toc ñuy def. dañuy ñëw toog dëkk ci kër gi tabaski la ñuy dem tabaski ba tabaski wala bu ñu amee xew ak ngénte comme ni nga ko waxee rek précarité moo leen ci dugal dañuy jógee dëkk ba duñ am feneen fu ñu tëdd duñ am feneen fu ñu dal dañuy obligé ñu nekk ci biir kër gi dëkk fa bu boobaa 6 heures du matin ba minuit uh-huh, uh-huh. bu ñu yeewoo avant ñu yeew nga yeew bu ñu tëddee ngay soog a tëdd loolu tamit ñi nekk ci kër yi dañ cee war a bàyyi xel uh-huh. ki dafay dafa dañ ko war a may fu mu fu mu reposé woo am na ñoo xam ne dañ lay wax ne man jànk bi fanaan laa bëgg ndax lan dafa am benn temps de travail boo xam ne nit ñi dañ kaa war a respecté mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. nit la mënul fonctionner du matin au soir ba ba ngay tëdd te yaay boo boo reppee ba ba biddanti rek tey dootoo ko dool yi malheureusement duñu am benn jour de repos duñu am jour de repos normalement bu ku doon wàcc am fu mu dem teg fa yaxam joor fa ay yaxam samedi dimanche au moins mais koo xam ne mi ngi ci biir kër gi du lundi au dimanche tabaski ba tabaski ça fait euh, elle fait un an ci sa kër imaginel yàpp amul repos nit ñi dañ cee war a bàyyi xel duñ leen may fu ñu am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee gis seen jànq tëdd di sax ñu naan la tey rek nga dee mm-hmm. yenn yi xolu yërmande boobu tam dañ ko war a dañ ko war dañ ci war Euh, bàyyi xel xam ne nit la comme yow day sonn ni yow peut-être que tàmm na liggéey bi ba ba ba à la fin peut-être sax du feeñ ci sa day feeñ sax mais wa mais mais nañ ci bàyyi xel bu baax surtout ñoo xam ne seen seen jànq yi moom tabaski ba tabaski dañ dem war nañ mm-hmm. bàyyi xel ci ñoom amuñu benn jour de repos c'est vrai loolu moom wax nga lu am am solo mais aussi tamit dafay daal di ajuwaat rek si nit ki ak yërmandeem mm-hmm. ak aussi tamit li ngay jàpp ne boo ko defee doomu jaambur mooy ñëwaat ci sa doom euh, sa mën na génn fii sax dem Europe nekk fa su fekkee ne yow yaa ngi yor benn mii na daan doole boo xam ne am nga yërmande si moom mhm. euh, mën na ko wallu feneen donc nit lu mu def boppam mhm. lu waaye def rek mhm. loolu mooy dellu si waat ci moom donc nit yi ci bàyyi xel bu baax baax euh, dañuy dem nag ci formation des jeunes yi nga xamante ni leen nii ña nga koy amal ngir tamit ba tey taxawu ndaw ñi ngir ñu am liggéey euh, dañuy ànd ak waa seetaan ko dellu si waat ci plateau bi mën na daal di dem ak Aïcha <laughs> mu ngi def nag liggéey bi nga xamante ne moom la daal di bëgg Ibrahima nekk ci atam gu mujj ci formation fii ci centre sauvegarde bu Pikine Guédiawaye moom nag mu ngi fi ñëw ci atum 2019 ci wàllu menuiserie bois lay yëngatu. liggéey bi ñu ngi ciy avancé liñ ci war li li li euh, ci war a yëpp ñu ngi koy def liñ ci war a def yëpp ñu ngi koy def euh, ñu ngi ci daal liggéey bi liggéey bu baax la liggéey bu baax la boo ñëwee jàpp kii rek boo bëggee dara moom boo ñëwee fi di nga di nga am li nga bëgg daal boo ñëwee fi di nga am li nga bëgg. man depuis 2019 maa ngi fi di def Euh, ci at bi sax ci 2023 bi laa def examen léegi dama war a génn. gannaaw diplôme am nag moom dafa fas yéene taxawal atelier am di fàttali ne ci centre bi nag formation bi mënul dépasser ñetti at. am nañu fi huit euh, kii section maanaam euh, tapisserie am na fi menuiserie bois am na fi métallique am na fi fonderie d'art sérigraphie électricité bâtiment ak les métiers de l'automobile tamit am na fi. loolu yëpp dañ si tàggat tamit ci xale yi. li nag day firndeel ne centre bi am na métier yu bëri yoo xamante ne mun na ko jox ndaw ñi bu loolu weesoo nag am na benn bloc scolaire boo xamante ne dafa regroupé moyen beeg général bi waaye nag ak laaj daal di sampu naka la ndaw yi di ñëw fii di duggee fii ci centre bi. xale yi ñu fi indi mooy xale yi nga xam ni seen jàng dafa yàqu wala xale yi nga xam ni tamit euh, dañu nekk. en situation de vulnérabilité ñooñu lañ fi indi manam pour joxat leen seconde chance ak tamit ar leen ci jafé jafé mbedd mi ak yoyu. AEMO wala action éducative en milieu ouvert muy jumtuwaay boo xamante ne dafa tënku ci ministère de la justice de am liguey bu am solo bo xamantene daf koy def jëmele ko ndaw yi. AEMO euh, buñ ko bëggé teunk moy service social bi nga xamné dafa am day. day taxaw xale bépp xale ci ñoŋal li ñuy wax protection am xale bi mën na am ay jafe-jafe ci jàngam ci dëkkuwaayam wala mu am jafe-jafe ci euh, côté euh, wàllu yoon donc mën na mën na nekk catégorie xale fépp fu mu amee jafe-jafe rek ay mu daf fay taxaw surtout nag ci côté protection sociale et judiciaire. liggéey gu mucc ayib boo xamante ne dañ koy rafetlu bu baax ba tax na ñu gën leen war a mën a jàppale ci wàllu woowee rawatina way defal yàlla yi waaye tamit nguur gi. lo gis rek dafa am jangat bo ci am moy service AOM yi nekk Sénégal euh, war nañ len di renforcer manam tay madame euh, Diop mi tay auto sax pour mu ñew fi auto bopam wala auto bu mu luyee la doon ñew di defa navette donc lu mel noonu aussi je pense que ñun état war nañ ci réfléchir ba nga xamné service AEMO yooyu ñu dote leen de moyens logistiques suffisants moy AEMO wala centre de sauvegarde yi di ay structure yoo xamante dañuy def liggéey gu muccu ayib jëmale ko ndaw ñi ndaxte ñoom dañoo jàpp ne donte war nañ leen gën a mën a dooleel waaye teewul benn yoon ñu yàkkamti ngir dimbale ñii di ndaw ñi Ibrahima Ndaw la ñuy jaa Ibrahima Ndong la ñuy jaajëfal bu baax a baax ci élément bu am solo boobu nga xamante ne nii jagleel nañ ko formation des jeunes ndax xam ngeen ne que ne dafay baax lool ñu daal di gunge ndaw ñi ngir ñu am ay formation après ñu am formalisation ak li nga xam ne moom moo di financement. Mhm. ngir ñu mën a concentré wu bu baax a baax consacré seen temps aussi tamit ci ay activités yoo xamante ne dañuy dina leen mën a jëmmal jëmmal seen ëllëg. Fatima élément bi seetaan nga ko ma bàyyi la ak sa invité. seetaan naa élément bi bëggoon naa ci dara balaa dem sama invité. gis nga genre structure yi AEMO yi. Mhm. dañ ko war a décentraliser. gis nga dëkk yu ndaw ndawaan yi. Mhm. xale yi nekk nii ci tali yi di jaay écouteur di jaay ndaamaraas ak yooyu noonu. gis nga bu ñu amoon genre structure yi je pense que ci sama xalaat je pense que du ñu ñëw ci dëkk bi di jaay ay ndaamaraas parce que li ñuy jaay dañuy nekk suba ba guddi ci kaw tali bi. Mhm. duñ ko dajalee gaal li ñuy dajale yépp gaal ba lañ koy jël yóbbu jël paas dem mais buñ ñu amee formation menuiserie euh, mécanique y a plein de formations comme yi ñuy def foofu ci biir buñ ko ci amee je pense dinañu toog fi ñu nekk bu ñu paree def seen formation am leneen lu ñuy def parce que comme jàng ji bu demul noonu nga am fenn foo ko mën a caser bu defee formation pare dina am métier parce que ñu ñuy def du métier le fait que nga nekk ci tali bi soo bëggoon di jaay ay écouteur xale yi dañuy wër ba sonn

ñu am métier. entre parenthèse li ma li may dal dina leen dal maanaam man fu ma romb xale yi nga xam ne ay marchand ambulant lañu. di jënd lu ne ma bëgg koo jënd. man foofu lu ma jënd <laughs> nee naa bu ma mënee fexe ba du ma romb kenn ci wedd bi. ah romb keroog nga naan borom gerte gerte di wër gerte gi jënd lu ne la kii jënd que dama leen di yërëm tellement. Mhm. waaye xam nga li ngay bëgg yëpp sa xol di koy laaj te doo ko mën. tout yal na leen yàlla jàppale ay xale yu am jom lañu nag. macha allah surtout surtout parce que imagine naaj bu tàng guddi Yes, ça, 20h, 21h, tu les vois, si Vélène, mais non, nous t'offrons. C'est bon, on fait ce qu'il faut. Je suis en train de formation sur place. Parce que les gens ont Ils s'attendent peut-être à devenir un commerçant demain. Mais quand même, au moins, si tu as un petit peu de temps, tu as petit peu de temps. Merci beaucoup. Nous sommes invités. Aïcha, Aïcha, je vais te dire. Je vais te dire. Parce que nous sommes timides. Nous devons comprendre. Ok. légui tay Aïcha buñ ñu Aïcha Aïcha dir, kan moy Aïcha dir, lan moy sa parcours lan nga ñu mëna wax. waaw légui man nak mom ay étude marketing la jot def. Mhm. et 2018 euh, l'a lancé mon premier projet. Mhm. moo doon fabrication à commercialisation produits capillaires naturels. mais du Sénégal. Mhm. après Covid ñeu mu xaw a compliqué. 2020 j'ai commencé à entreprendre di jàppale entreprise c'est ndaw marketing ak une communication pour une mhm. visibilité mhm. Les difficultés que je rencontrées dans l'entrepreneuriat, ci me permettre de me créer euh, sama entreprise Je vais mhm. nga xamante des day yombalal euh, entrepreneur à travers indépendant si c'est euh, si réalisation réalisation un projet Mon kon si je déggee bu baax loolu moo tax nga difficulté yi nga yi nga en tant qu'entrepreneur, entrepreneur mon mot le poussé tey nga ni je vais éviter aux autres futurs entrepreneurs de de en quoi faisant alors comme je ma comme ni ma ko waxee dama proposer d'abord un cadre pour maintenir ces réseaux donc mën nañ rencontrer un entrepreneur mhm. mën nañ appeler entre ñoom mën nañ aussi à travers cadre boobu am un bureau

pour me mën concentrer au def li def et en même temps am na possibilité euh, rencontrer d'autres entrepreneurs et échanger. exactement mën na ci def ay formations aussi. Mhm. macha allah Aïcha lan mo, la <laughs> xam nga idée bi comme wax nga ma fu mu jógee. Mhm. sa entourage. xam mhm. nga je suppose que tu as travaillé avant de créer ton truc. bo xam nga en tant qu'entrepreneur. boo bo boo xëyee liggéey nekk fenn nekk salarié et tout nga ne damay bàyyi dem defi lii à chaque fois réaction fi Sénégal lañ nek ñëpp am droit ci li ngay def. Mhm. sa papa ak sa yaay ak sa mag ak sa tante ñëpp naan la wël ak nangam nangam comment ça s'est passé yow par rapport à ton entourage. alors c'est vrai que entre 20 ans et 30 ans souvent tu te cherches. Mhm. man nag dama am chance ou dama am entourage bo xamanteni dafa bienveillant dañ mo mës a soutenir ci bépp projet bu mhm. euh, ma mënti dugg. d'ailleurs entreprise Maam ni dama ko cofondé ak sama frère. dafa gëm euh, idée bi ma bi ma amone mu investir ci loolu moo indi ba fi tay d' man li may bëgg a moy mooy ñi nga xamante ni peut-être ya ngi leen di assister pour ñu réaliser sen ay projet est-ce que dañuy nekk ay collaborateurs yo xamante leen ni après réalisation bi lañuy am ngay am pourcentage ci li ñu doon def wala au départ ngay am benn prix bo leen di fixé euh, ci ñu jox la ko ci nga mëna gungé gunge leen euh, ci lolu noonu voilà man nag benn prix la ñu am au départ bu ñuy fixé donc ñun dañuy def partenariat ak ay professionnels yoo xamante ni ça mën na ci gestion de projet mën na nekk finance mën na nekk marketing mhm. lépp luy tax ba projet nit ki dem ba aboutir donc dañuy def ay partenariat ak ay professionnels yoo xamante ni ñoom dañuy def seen prix ñu ñu jël suñu pourcentage mais c'est comme ça qu'on propose nos prix à nos clients D'accord. C'est si partenariat boobu aussi tamit est ce que dina am ñoo xamante ni dañuy euh, dañuy ñëw ci wàllu xam-xam bi peut être benn moment mën na ñëw euh, am na benn idée mais amul expérience wala amul connaissance bi nga xamante ni ne moo koy mën a permettre mu mën a euh, sampo nëndëm comme niñ ñu koy waxee bu boobaa da nga koy booleeg ay nit yoo xamante ni peut-être seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu boobu wala waaw effectivement loolu la ñuy def donc comme li ma ko waxee euh, booy entreprendre war nga mën a toucher à tout war nga def business plan war nga def ce plan de financement war nga def gestion de projet war nga def comptabilité ak lépp donc ñun dañuy def ay partenariat ak professionnels si chaque secteur mhm. ñooñu ñun nag ñooy jàppale par domaine euh, suñu clients yi d'accord madame Meng c'est euh, très important en fait en tant qu'entrepreneur aussi comme moi je pense que mhm. souvent da ngay gis ku yor euh, xey xey créer ben affaire on damay entreprendre mais du xam fu mu mhm. donc genre réseau ça permet aussi de rencontrer une personne il y a difficulté yi nga amone ñom gis nañ yi nga am ñom rencontré nañ ko paré mën nañ la ko éviter aussi accompagnement bi wonna aussi étape yi nga wara jaar pour que ce projet mën réussir facilement aussi c'est très important faut pas ngay entreprendre tok ce coin C'est très important genre réseau yi ak genre espace de coworking nga mën ko fréquenter pour gis yenen morom entrepreneur pour partager partage ay information ay bon plan yooyu c'est très important tout à fait euh, Fatima xam nga li que am solo moy des fois dañuy tok fi ñuy waxtané que entrepreneuriat il faut que nous passions parce que mën ngay def perte di def di perte ba mhm. yalla bu muy ñëw mhm. Mhm. donc ñom aussi perte boobu mën nañ la ci éviter euh, parce que euh, ñoom euh, seen expérience dina la mën servir pour yow même bo des perte ben yoon après boo defaatee rek da ngay gis yoon bi te lolu c'est important tout à fait parce que xam nga comme niñ nga ko doon waxee dafa fekk ñom da ngay gis ko xamné daanu na wat daanu wat ba am lu taxaw mu ñëw ne la kaay ma won la nan la def éviter les, pièges à éviter c'est une excellente idée machallah mm-hmm. mais l'un de la xam assurance parce que parfois il y en a qui te disent euh, j'ai un projet mais que gardent garder jalousement parce que Denis bañ a ñëw exposer projet ils n'ont pas les moyens de l'exploiter ils ont ñëw exposer ko après ils vont exploiter comment comment ça se passe à ce niveau là euh, donc il faut savoir que déjà entreprendre doit ànd un risque. Mm-hmm. donc am na ñoo xamante ni un def seen business plan bëgg maîtriser maîtriser les risques, te souvent c'est sur le tas que ngay xamee yenn risques yoo mhm. xamante ni mënoo prévoir donc ñun foofu les leen di jàppale surtout dañuy mhm. dañ leen di aider ñu définir seen business plan xam risque yu waroon am xam fan la ñuy jaar est-ce que un projet rentable ou pas est-ce que c'est mhm. ça vaut la peine de laisser tomber ou pas de continuer d'accord mais mais mais xam nga parfois y en a comme ce que je je vais euh, essayer <laughs> de reformuler, ma question <laughs> euh, une personne ben, je, je peux avoir un projet am am euh, space coworking comme sa boss Moi, on suis sur place à euh, mon projet mais j'ai peur est-ce que si je j'expose mon projet elle va pas le piquer Mmh. Ah, c'est ce que je voulais dire. la formalisation aux entreprises, mm importante. important, parce que normalement, on va formaliser ces entreprises, ce registre de commerce, de telle sorte que de ça, tu se projet, de mmh. ça, tu se marque. Mmh. Donc, dès que tu as un bon projet, tu penses que c'est un bon projet, de me le formaliser. Ça, c'est la première chose. Parce que nous, nous, ça, tu sais, idée, ça, tu sais, marque, c'est monde. Non, mais juste, je rajouterais, excusez-moi. Hein, ah, non, non, juste, en fait, pour moi, entrepreneuriat, bon, une expérience, d'ailleurs, ce projet, ragal, mais si il idée bon, am lu mu bax bax amna ko ko ci monde il xalaat ne yow idée mhm. donc en fait li changer différencier entre entrepreneur moy ki nga motivation da dem rigueur am ak rapidité d'exécution mhm. entreprise bi moy mhm. différencier mais idée est xalaat rek xamal na ci monde bi qui ko ko xalaat peut-être sax mi ngi nek donc faut pas avoir peur entreprendre début boo ñëw di ragal sa idée do dem donc il faut nga ñëw wax sa projet partage ko nit ñi so gisee ko am même idée bi pourquoi nga collaborer ak mom c'est ça c'est ça mais faut pas ragal moy mm-hmm. valeur ajoutée bi ñuy wax moy def peut-être moy mon moo lay génne ci lo bi mm-hmm. euh, su boba yow tamit pour nga mëna démarquer wu ci ci ñi nga xamanteni ñi def nañu même chose que yow mm-hmm. euh, su boba tamit yeen nan ngeen di def pour gunge kooku nonu ngir jappalé ko ngir mëna créer lo xamné ne permettre peut-être ñi nga xamanteni ne dañuy ñoom ñooy consommateur u li def ñoom ñu gis ben différence entre mom ak ñeneen alors ñun côté boobu dañuy insister sur nit ki lan moo ko gën motiver ci créer projet parce que parfois histoire bi mu am derrière moy jox euh, benn côté bu innovant ci projet donc parfois dañ koy pousse fu sori pour mu xam lan moo tax mu créer projet bi deugantane parcours parfois ben histoire histoire histoire qui nit ki inspiré consommateur une pour ñu jënd produit parce que mm-hmm. parfois nit histoire ou nit ki de ne pas produit ou le service donc tu captes par les sentiments mm-hmm. parfois par les émotions mais mais dans tout ça il y a des problèmes c'est sûr mm-hmm. quels sont les les problèmes Y as rencontrés par rapport à avant pour pour euh, avant de créer fan les étapes à suivre les problèmes que tu as rencontrés dans tout ça là créer les alors, le problème que je te rencontre souvent en entrepreneuriat depuis 2018, c'est la charge de travail. entreprendre, tu mm-hmm. n'as pas forcément moyens financiers qui permettre de recruter des experts marketing, ben comptable, et mm-hmm. Donc, tu es obligé de toucher un peu à tout. <clears throat> Et donc, charge de travail, Bob, si tu n'es pas discipliné, j'apprends encore à me discipliner. Si tu n'es pas discipliné, tu es très vite décourager, éparpillé ou, ou tu as burn-out. je dis que ça est saturé. Ce mhm. cerveau bloque, stop. Donc, Mais... Mhm. Mhm. Ah, bah, allez-y, continue. Voilà, lolo, lolo, lolo, ça fait partie des difficultés principales. Mais par rapport au financement, euh, comment ça a été Est-ce que a, le financé ou bien les proches comment ça arrive. wala il y a un bon fonds pour débuter comment ça s'est passé. pour alors man proche proche yi mes mhm. finances surtout pour dernier comme je l'ai dit, j'ai cofondé ça avec mon frère. qui a mhm. cru au projet. Mhm. mu décidé se financer donc man chance pour à mon mais souvent pour nous, nga avons ni dañuy financement parfois c'est compliqué nous xam fan la ñuy commencer wee faut nga waree def plan de financement boo xamante c'est crédible pour que investisseurs yi nangu investir ci ce projet Il mm-hmm. n'ak aussi la leen ñi parce que business plan plan de financement moo si important mm. ce plan de financement bu crédible rek nit yi dinañ la nangu financer mais ñu bëri xamuñu processus bi ñuy jaar ba faut foofu d'accord nous la ñuy mm-hmm. jàppale mm-hmm. mën aussi euh, euh, petite entreprise yi nga des fois dañuy organiser ay séminaires ak du genre donc ñoom buñ koy def est-ce que yéen di ngeen leen gunge ci ñu am local salle bu leen di a effectivement ñun am salle de réunion bu jël capacité maximale de 25 personnes. donc c'est euh, entièrement meublé équipé donc am climatisation une télé pour une projection et autres donc nous fa retrouver au. dañ leen offrir aussi ay boissons chaudes. L'essentiel, c'est que nous avons un cadre convivial pour nous recevoir nos collaborateurs accueillis pour cette réunion. Pierre. Mais euh, par, rapport aux structures de l'État qui sont là pour financer ou et mhm. est-ce que est-ce que pour agrandir. parce que li ngay def solo. il y a tellement de gens tellement de jeunes qui ont des projets. Mhm. à exploiter à à mais et tout ils ont des idées étudiants la majeure partie de ces mémoire c'est des projets. Mhm. mais ils am des pas concrétiser et je pense que mono mono Mmh. Est-ce que yéen a ngi xalaat dem approcher les structures de l'État pour pouvoir euh, élargir euh, si si xalaat naa def un peu collaboration ak ñom parce que ñun fan la fan la nit jappelé moy mmh. côté tabax projet bi mais mmh. après euro u financer projet bi bu il faut que ñu jéem def partenariat ak ay DR ak yoy comme li nga wax pour mun lañ financer parce que parfois di nga bëgg ñu financer ce projet comme ni ko doon waxé mais do xam foy jaar te da ngay ragal parfois xamoo ndax taux d'intérêt bi ñu na jël day bëri wala yoy noonu mais Yen, à votre niveau est-ce que est-ce que est-ce que a approché les structures. Pour, ah, pour, pour, pouvoir être financé. Nous financer les Yen, yens, agrandir. nous, nous financer. Nous. Oui. Wow, nous, nous avons l'instant. L'instant, nous est commencé à approcher les banque pour voir, comme je l'ai dit, taux d'intérêt, ce n'est pas trop élevé. Est-ce que c'est faisable mhm. Si toutefois c'est faisable, Inch'Allah, ce que nous voulons, y a un espace, une chaîne de coworking, où nous appeler euh, les entrepreneur Et même plus tard, peut-être dans l'Afrique de l'Ouest, il y a forcément des Sénégalais dans d'autres régions, dans d'autres pays, qui ont placer un espace de coworking comme nous l'avons au Sénégal. Parce que si je comprends bien, après... Nous déménageons de Mamel pour espace Bougon. Plus d'espace. Est-ce qu'on peut s'attendre à euh, délocaliser dans les, dans les, déjà, à Dakar, mhm. et après les régions et tout, déjà au Sénégal et après dans la sous-région Effectivement, c'est ñu ngi doon bëgg inshallah allah su su ñu ko yàlla mayee ubbi beneen euh, cité kër góor gi parce que demande bi bëri na foofu. Mhm. ensuite on verra peut-être Mbour parce que étranger yi dañ fay fréquenter lu bëri. Mhm. te soxla neen ay espace de travail ñoom aussi parfois ñu mën a. mais par rapport ak étranger yi est-ce que vous avez vous avez déjà avant de les am nga j'ai rien contre les étrangers d'accord. Mhm. <laughs> est-ce que <laughs> am ngeen <laughs> am ngeen euh, benn benn benn. Euh, ben euh, comment politique bo xamné parce que c'est des étrangers quoi qu'on puisse dire man nga ñëw financer len wala accompagner len ci dara yóbbu len comme tu as dit amna na ñoo xam ne euh, da di gungé pour ñu kii financement est-ce que assurance beeg yoyu noonu pour pouvoir les suivre les neutre les maîtriser quelque part parce que man nga def li ñuy def ba pare ñu financer ñu jël ki dem sen yoon non alors euh, comme toi, je n'ai rien contre les étrangers. Aussi. Mais pour le moment, entrepreneurs sénégalais, les étranger, mhm. étrangers, fan les nids appelés, moi, espace, vous vous pour recevoir ces collaborateurs, et réunions. Amener un petit comme ni ma waxee bu amé mbuur wala yoo am na xamante dañuy ñëw Dakar wala Sénégal juste pour def ben réunion d'affaires de maths ñun fofu la ni ñi mais pour le moment on est surtout concentré sur les Sénégalais d'accord c'est important euh, laaj bu mujj bi mais laaj mom moy que euh à part loolu noonu est-ce que da ngeen di dem des fois nak sur le terrain ngir mëna xam euh yane activité mo gëna rentable ak aussi tamit ñi nga xamante ñi ngi ñëw comme nit yi dañuy ñëw indi sen ay projet fay bax aussi tamit balaa ñuy dugg ci yooyu les projets di ci investir li ñi am te bariwul ñu mëna xam ba xam lolu dina am rentabilité ci ci après donc est-ce que des fois vous ngeen di sur le terrain pour détecter carrément euh, projet yi nga xamante ne bu ci nit ki investir xaalisam dina ko a donc comme ni ma dit, nous ñun dañuy def partenariat ak ay experts loolu euh, le business plan bi concentré donc qui euh, spécialisé dans ci business plan moom bu étudier ce projet étudier ce marché dina le mën a wax rentable ou le rentable d'accord donc nga mën a xam yow ndax si mën avancer ndax dinañ le financer investir ou pas c'est très important important ndax Fatima li am solo mooy dugg ngay ñew rek ñu dugal la ci jappalé la nga investir non non mhm, mhm. ñom dañuy étudier ba xamné li ni peut être rentable na ci yow euh, mi ngi non, ta loolu dafa nekk lu am solo loolu dafa dafa am solo dañuy ñew xam nga comme ni mu ko waxé au fait c'est d'où d'où l'importance de de ce que vous avez créé mhm. té ñu ngi leen ci encourager mais en plus de ça je voulais savoir euh, genre investisseur bu yor xalissam bëgg investir ci ben projet est-ce que dañ leen di approcher yeen le ku investir je approcher pour voir les différents entrepreneurs qui sont là des projets à proposer et tout est-ce que est-ce que day ou approcher effectivement pour euh, prévoir nañ créer un meet-up une rencontre il y ni dañuy invité un investisseurs mhm. ak entrepreneur yi nga un seen projet dem na business plan bi taxaw mhm. comme ça ils ont expliquer expliqué projet. seen projet faire lay waxee importance au plan de financement si l'investisseur voit que le plan de financement est crédible, crédible mhm. ne bëgg pas investir donc pour il foo ñu am opportunité rencontrer un investisseur et ay quoi les entrepreneurs madame Meng, à mon projet oui. <laughs> oui. man sama projet ngi projet non projet élargir. décentraliser tamit. ba objectif bi déjà déjà donc euh, en fait façon la. service régulier souvent c'est plus femmes de ménage aussi service à la journée donc mën nga soxla un plombier nga réserver ko une application mobile wala par web donc c'est boobu service que la ñuy proposé Nous ñu aussi bëgg gën ko élargir donc nous ñuy def créer une franchise peut-être un peu partout en Afrique mhm. on a des bureaux yoo xam ne pour former mhm. pour former et puis parce que problème bi nga am Sénégal moom nga Mali moom nga am Côte d'Ivoire mhm. même problème yi que ça soit les femmes de ménage que ça soit informel bi ak manque de manque de valorisation métier parce que dañuy wax métier bu ce n'est c'est pas sexy comme métier mm-hmm. Le métier bon, ne ko bëgg mm-hmm. mais c'est quand même difficile mais il faut les accompagner mm-hmm. donc l'objectif c'est d'élargir aussi un peu partout au Sénégal au Sénégal et puis en Afrique de l'Ouest d'accord Mon nga une plateforme yi nga xamante peut-être bu ñu ci kiiwee rek mën nañu xam structure bi naka donc sur internet sur internet mon nga def ñafe point com nga aussi sur notre page on est sur LinkedIn on est ah, fait comme ñafe comme liggéey ñafe <laughs> ñafe mooy dimbali ñi nga xam ne ñii ci kër yi bëgg a xëy dem ñafe ji soxla nañ ku leen jàppale ak ki nga xam ne mooy xëy di daan dooleem ok d'accord man na xam nga lu ma leen yéene ngeen dem ba mbir mi mhm. yéen yéene dem ci gox-goxaat yi di fay jël ay nit di leen indi di leen loger mhm. en attendant que ngeen di am fu baax fu ngeen leen mais loolu daan nañ ko def daan nañ dem ba parce que dañ daan am ay clients ñu waa dama bëgg ko jógee village dañ daan dem village waxtaan ak ay xale xool ñi si am carte d'identité ñu ne leen ok mën ngeen ñu rejoindre mhm. ñëw leen tel tel donc loolu dañ ko daan def suñu première opération c'était ça mhm. parce que loolu muy gën a rassuré parent bi nga xam ne mi ngi euh, fële ci gox goxaat bi war a bàyyi doomam mu ñëw ndakaaru parce que ñu bëri Fatima dañuy bëgg seen doom ñëw liggéey mais des fois duñu wóolu te luñ fiy ragal aussi mi ngi fi mhm. seulement nag règle boo gis am na exception bi ñëpp ñoo bokk yem euh, naka nga ciy dalee tey buñu ñëwé jël sa dom da ngay xamné li lii du ñu ne garanti à 100 mais au moins dinañ am garantie 80 si si lool mom day rassurer parents yu bari si gox goxaay si dëkk yi parfois nga ñëw en tant que structure nga présenté wu en tant que femme ñëw aussi né leen man di problème yoy la am gis na ne xeyna peut-être seen fi gox bi am na si ñoo xam ni mais voilà c'est quand même Sénégal dafa am réalité aussi boo demee si yenn gox yi ak ñi ngay présenté woo pour nga mën leen rassurer aussi c'est très important fofu la bëgguna ñëw est-ce que c'est pas mieux ngeen wut ben représentante ko xamné ci dëkk ci dëkk bi la dëkk xamna ñi famille à cause ko et tout ba mhm. au moins bu dinañ xam koy mhm. mhm. intermédiaire entre ak famille ah. intermédiaire entre euh, bi at est-ce que c'est pas mieux d'avoir peut-être peut-être que pour l'instant dañ dem rek dem présenter ou expliquer mais li nga wax aussi. non parce que xam nga xam nga nit ki gis nit ki mu toog xamul fi mu jógee. Uh-huh. mu ñëw ne la lii laay def ak sama doom te Dakar dafa doy waar. da ngay uh-huh. jël xale bi ñëw wax loolu yóbbu ko di ko prostituer ak loolu. Uh-huh. mais bu ngeen amee une personne boo xam ne ñëw na xool seen liggéey xool nu ngeen def nekk ak yéen def ba ngeen defaral ko benn formation ba moom bu àggee dina xam. Euh, mu mu am link k waa ak waa dëkk ba parce que ñoom ci dëkk bi lañ dëkk xam nañ leen dafay baax ku nekk nga def ko ci dëkk yooyu noonu que ça soit important ñun amoon nañ ay éléments yoo ne exemple mbooro lañ nekkoon mm-hmm. euh, ñaar lañ woon mais ñoom ñaar rek déjà dañ dem ba dañu représenté foofu dañ ñuy woo nañu diw moom a woo moom a booleeg seen structure mhm. parce que noonu la daan demee chaîne bi noonu la daan demee fekk li ma ciy ragal juste mooy que ne loolu lépp tamit mhm. nekk ci euh, dépense client bi nga xam ne moo soxla jànk parce que à la base ñoom bu fekkee dañoo nekk mhm. foofu noonu di leen booleeg ay jànk dañuy am pourcentage buñ ciy am yéen aussi ñi ñuy indil jànk bi am lu ngeen ciy am ñu bëgg a fay jànk bi te ñun suñu salaire la yàlla xam doy na finalement day mujjee metti man je me dis que ne pourquoi pas parent bi nga xamante ni mi ngi jox doomam kenn lu tax munu ko ànd ak moom ba ñëw xool ci yan condition la doomam nekk loolu aussi tamit responsabilité parent la doo jël sa doom rek même ki nga bokkal gox sax mu daal di lay recommander kenn mais kooku daf la recommander rek mais dara wóoru ko mais yow dafay jar benn instant même bu fekkul ne ci structure la sa doom jaar nit rek moo jël mu ñëw ci kër ga xool ñi koy liggéeyal waxtaan ak kër gi xam doomam ci yenn condition ak ci yenn nit la nekk loolu aussi tamit ñi nekk ci gox goxaat yi pour man war nañ ci di bàyyi xel jël sa doom noonu rek sànni ko malheureusement c'est très peu de parents yu intéressé c'est très très rare. Mhm. malheureusement xaw ma lan la mais c'est très rare. waaw ah, pàcc boobu ñu dugal seen loxo faaw ñu dugal seen loxo ñu xam ne doom aussi responsabilité la. donc tey jii bu fekkee ne am na jom mi ngi dem di liggéey yow parent bi mhm. war nga dem xool fi muy liggéeyee fan la parce que am na ñoo xamante ne leen ni tey dañoo miinanteeg seen mhm. euh, waajur ñi jur ñi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal mhm. ba bu euh, feet yi ñëwee ay tabaskeeg yëpp dañ leen di préparer yu bëri ndeysaan may leen pour bu ñu demee may ko seen waajur yi parce que xam nañu ne ñii ñu nekkal doom la ñu doon si ñoom donc am na solo lool Fatima loolu la comme boo laajee benn laaj ma tëj. donc <laughs> contribution laa indi dafay baax parfois peut-être que ñun ba fi ñu nekk mën na am du ñu dégg mais ñi ñuy dégg nañuy bàyyi xel bu ñu amee seeni doom ñuy yónnee euh, dak réewu taax pour ñuy liggéey si nañuy gëstu fu ñu nekk nañuy gëstu fu ñu si loxo yi ñu leen teg nañuy gëstu parce que la majeure partie dañ leen di jëlee directement dëkk ba andi leen ci kër comme li mhm. may wax tabaski la ñuy delluwaat wala bu ñu amee mari di taar yi naqar dëj wala wala mariage mooy tax ñu nekk dañuy ne ci benn kër dafay baax téléphone waru dal sa xel waru doy dafay baax nga ñëw ba foofu xool sa doom nu mu toogee dafay liggéey mais nit la dafay liggéey mais doom la nga xool sa doom nu mu toogee xool ci loxo yu mu nekk buñ dalee sa xel nga bàyyi leen fa buñ dalul sa xel it parce que am na am na am na am na am na complicité boo xam ne parents yi malheureusement ici que ça soit au Sénégal en Afrique amuñu ko ak xale dëkk ba am na yenn yenn réalité yo xamné xalé bi du mëna a euh, du mëna comment on va on va dire ça. du mëna exprimer exprimer ak parent expliquer nu muy demee du du ko seq ak mom mëna nek ci kër ñu koy utiliser sexuellement du ko wax papam du ko wax yaayam ak yoy non mais da fay bax parfois ngeen jugee fi ngeen nek même bu dee benn journée la nga ñëw wàcc xol ki sa ki sa dom nek ku mm-hmm. fan lay agné di fa réré di fa nekki di fa fanan di fa nek at. da fay bax ngeen ñëw di xol seen dom ci num mu mm-hmm. c'est très important merci. c'est toi <laughs> c'est moi. <laughs> mi ngi noonu am na solo xam naa ne ñàkkul ne sama réalisatrice am na lu ko traumatisé si jànk ndax boobu ba te mi ngi naan ma wax ko euh, na wax ci tabaski gi gaa euh, jànk ah. lan lay wax et mais jànk yi nga xam ne da ñëw ñu waajal leen defaral leen wala sax ñu former leen ci biir kër yi après ñu xëy wor nit yi dem seen yoon donc yooyu noonu tamit xëy na mi ngi noonu daal ñàkkul ne moom après naa ko laaj ba xam amul lu mu amu ci woon traumatisme <laughs> mi ngi noonu am yenn nga moom wax dëgg yàlla yenn ah, aussi c'est stressant aussi am na ñoo mhm. ñu ngi perte seen jànk ñi ngi dem xamoo kañ lay ñëwaat voilà koo xam ne miinoon nga ko amoon nga confiance nit yi mhm. xale yi miin nañ ko surtout mhm. la majeure partie dañuy dañuy battre ils se battent que xale yi dañuy miin nit ki ba ba nga xam ne ñu dem dëkk ba toog fa mën nañoo ñib si de wala nga wala ñen ñoo guma de maa ngi fii dans un mois laay dem fekk ñëw nañu ba nekkaat ci beneen liggéey bàyyi leen wor bi <laughs> boobu tam dafay am solo ah, parce que tu es obligé nga xalaat ba ku nekk mës dund benn jànk bu la wor <laughs> wor man am na xale yi dañuy ñëw kër ga ma ne bu leen wax ak man <laughs> man bàyyi leen parce que dañuy dem da ngay dem ba miin leen ñu miinal seen bopp bi am na benn famille boo xam ne uh-huh. ki njëkk ñëw je vais citer Marie moo njëkk ñëw ñu dem ba miin ko mu dem andi andi andi ndey nga dem ba min ko ba pare xale tuba tubaab lañ jógoon dañoo yaru neex a waxtaan mu dem nga ñew andi la binta mu rakkaat jigéen bi neex Fatima est-ce que ñu lu yom parce que ñom aussi dañoo am vie dañoo wara am jëkkër war wara dem def seen vie aussi tamit dañuy dem ñi ci ñëpp si waa Dakar dem liggéeyee je pense que mentalité tam war na mën a changer war na changer parce que ñoom aussi dañoo am vie comme ñun des fois dañuy faté ne que ñom aussi dañoo bëgg construire dara comme ñun niñ ko defee ci suñu ay foyer donc tamit de plus en plus ñu bari nangootuñu fanane et puis dañuy partager tâches yi il faut ñu mm-hmm. réduire mm-hmm. expliquer exactement de 8 h à 18 h de plus en plus et fof lañu jëm ah. léegi nag tëjaaleel yow yow yow yow man man mais fof lañu jëm inshallah je pense que dans l'avenir dina dem ba xam ne bi dina metti metti ba xam ne ay kuy fanana yooyu waxatuñ ko. aussi xalaatoo jël kenn mu lay defal tâche yëpp. da ngay mhm. am ku nek heure bi mi ñëw ak heure bi mi dem taf ah, inshallah manam ñu dem ba kuy fanaan ñu bayiko ah fanaan bi moom ragal naa ne dina mais ñun de plus en plus dañu problème fanaan. <laughs> boobu day métti boobu <laughs> non dina non mais c'est vrai du arranger ñu bëri mais. organisation la rek loo gis mën na nekk organisation la mais parce que fanaan bi. horaire de travail lañ mënul maîtriser. Mm-hmm. dëgg finalement salaire bi du suivre aussi. dëgg mm-hmm. ñu am tuuti yërmande. Mm. donc yow looy ci julli gi euh, remercier ñep et puis di len wax ne lancé aussi opération tabaski si julli bi. donc dañuy permettre dañuy jël ay jank yi nga xam julli ji wuñ. Mhm. mettre leen à disposition pour aider ménage yi. ñu un am soulagement sur 3 jours. donc opération bi yagul amna tam aussi ay formule une semaine. donc di len vraiment di len remercier nak vraiment di remercier Fatima di remercier maman di remercier ñom Thioro madame Badji. Mhm. ñom ñep di leen remercier kontaan naa trop si vraiment parce que montrer genre moy woné né est aussi liggéey la comme liggéey yep valoriser ko aussi.

ma daal lay bàyyi Aïcha di nga tàggatoo. waaw maa ngi remercier ñepp man tamit. vraiment ci li ngi ni encourager entrepreneurs yi di leen mettre en avant. Mm-hmm. vraiment lu am solo la. ñi ñu remercier encore une fois. kontaan naa trop. mi mm-hmm. ngi noonu mm-hmm. dafay am solo ñu dal di euh, déglu ndaw ñi dalal leen mais jox leen sen chance aussi tamit pour que ñom la nga xamne ne ña gor cay góorgóorlu ñu mën gëna am visibilité en tout cas télé bi sen télé la yéna ko mom RTS moy la chaîne leader di sen moomeel sa ngeen bëgge rek ñu ngi fi pour yeen euh, Fatima borom entrepreneuriat. waaw waaw. waaw comme ni ñu koy defee rek fu entrepreneur nekk ñu daw loqati la ñëw tegle si plateau bi wane leen yéen it bu leen taay contacter leen ñu vous pouvez ñëw ngeen wane seen bopp dafay baax parce que c'est ça moom mooy moo waral ñu ñu créer entrepreneuriat mm-hmm. moo tax daxaa comme comme mon directeur insisté si mhm. créer leen li wane ñi def mhm. bu ko defee duñu fay dara ñëw def ko gratuitement ça permet à d'autres qui veulent se mhm. lancer ñu ñu ñu ñu am courage parce que ku nekk boo waxee say kii buñ la suivre dinañ xamné ne ah kii kat war naa mën a jug ma lu may xaar je vous remercie euh, madame Beng ak Aïcha <laughs> machallah ça a été bien et euh, il faut me me remercier ku ma sañseel tay kii fa design mo fi jaar tay moo ma defaral <laughs> sama tok grand bu ni ma sañse léegi numéro de numéro de téléphone bi xaaral ma génne ko dégg ngeen may leen ma tuuti rek. d'accord euh, ki fa design la nekk Mamouf Touré moo moo koy moo koy moo koy defar. yëre góor mooy may maninam mais jigéen ñi tamit noo def parfois mu am fu mu génn xiyeen ku ci bëgg nag da ngay def 77 447 31 85 Mamour Touré kii fa design moo fi jàppale. man nag damay remercier Kamal Raw gis ngeen tey fi ma génn macha allah mhm. fan yi moom wax dëgg yàlla suñu créateurs yi ak créatrices yi ñi ngi def ay liggéey yu mucc ayib euh, Made in Sénégal xam nga Made in Africa comme niñ ko bëggee rek ndax dafay baax nag euh, bu ñu promouvoir ñi nga xamante ñooy entrepreneurs yi daal di gën a jëmmal aussi ñi nga xamante ne la nii ngi euh, yëngu bu baax a baax ci walum ñew bek walum euh, peinture bek wal yépp yi nga xamanteni la ni suñu ndaw ñi dañoo am jom Kamal Raw merci beaucoup ñëwoon na ci plateau bi di def mhm. liggéey bu am solo création yu am solo machallah numéro téléphone am nekk 77 365 60 53 77 365 60 53 merci beaucoup mon frère xamna semaine bi yépp inshallah mom lay andal ñi rek la koy défé nak yu magnifique rek xam nga toog tegle samay tank ndax jéeg ak këram la wax mi ngi nono euh, su ko defee ba jaajëfal téléspectateur téléspectateurs yi nga xam ñi ngi ñu doon top depuis 11 h on espère bien que né liñ fi waxtaanee jural na leen njëriñ ak suñu invité yi wa régie Thioro ci réalisation bi machallah ade ci montage na ci machallah nga xam ñom Fatima dañ ko sonal xanaa macha machallah ade ade ade ade wa yi ngi mu ñew xolal pourtant bañuy wax sank mi nane naan ay problème moom ki kii ma ne ko ma ko ma ko elle j'ai confiance en elle bi lay gisoo ki tok ma ne mm. ko envoyé ma rek ngeen balancer ko ade dina ko gérer mi ngi machallah mais comme nonu la rek RTS mom ni rek rek lay daldi démé machallah euh daldi remercier tamit Nicole si euh, son beeg euh, micro yek machallah ak suñu cameraman bi jaajëf remercier nañu ñëpp jox leen dig dajé suba ak jaamu ci benen numéro wu jéeg kërëm këram la nak nag prenez soin de vous ngeen nekk ci jaamu bëgg ngeen ñu way ñoo leen raw macha allah. <laughs>